Connect Food agsi na nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay sa kër wala foo mënti nekk téléchargel application Connect Food commandé ci restaurant bu la neex waaw lu ëpp cinquante restaurant yu gën a mag biir Dakar ñoo nekk ci application Connect Food Connect Food daal boo bëggee sa restaurant di gën a fës wala nga bëgg a commandé vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept Connect Food mooy bu baax bi ku bëgg ay leeral téléchargel Connect Food Play Store wala App Store wala nga woote ci 77 821 08 27 wala 33 840 43 29 73. Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livre la. Jolof Chicken moo leen di may li ci yéenekaay yi mbokk yi dal leen ak jàmm ni ki tey juróom benn fan ci weerum octobre la école Sénégal yi nar a ubbi seen i buntu critique yéenekaay ne démb ci conseil des nag président Macky Sall nañ bépp ministre rawatina ñu yore wàllum jàng meeg jàngale mi ngir ñu mën a taxawu professeur yeeg élèves yi ba kantum horaire bi ñu natt ñu mën koo respecté le soleil yéenekaay ne président Macky kañ dafa taxaw temm

ka naan yokkute googu li ko waral moo di exploitation hydrocarbure bu waa GTA ak Sangomar wala Amérique ci mim réew lii la nag su noppee mun na yokk koom-koomu Sénégal jëm ci 10 virgule pour cent alerte yéene kaay ne président Macky Sall kañ ci yokkute budget 2023 bi ci saafara jafe-jafe yi dund bi askan bi nekkee ci lay dox yéene kaay bi ne yému ci ndax ci 2023 bi ñu jëm pétrole ak gaz bi ñu am ci mim réew ci lañ koy commencé exploité lii rek war na tax ba budget bi war a mën a yokk bu baax ngir askan bi mën cee yegg bopp ginnaaw nattu la ñu war a mën a xaarandi diggante président Macky Sall ak waaye source a ne jamono ji kañ gis parti démocratique sénégalais ak président Macky Sall du loo xamante mën nañ ko miim yéene mi ne ginnaaw bi waa parti démocratique sénégalais ànd ak ak coalition bi di yeewu askan wi ci élection législative yi ñu mujjee jamono ji nag ñoom ñoo moomee ba tax ñi ñaangi leen di woqee fu nekk lii la am nag tax na bu journal bi méngale leen ak jeu d'échec boo xamante ñoom ñi lee parti démocratique sénégalais ñoom ñooy ñetti yoo xamante ne xaman ci parti bi taxaw teem moom Serigne Mbaye du fi nekkee secrétaire général le ba tas ñi war a ba tas kañ moo ñuy gàlloo ak urbanisme ak assainissement fii ci Sénégal l'observateur yéen kay na def ab taxawu seetlu ci yoon yu bon yi nan lañ koy defaree ak société nga xamante ñoom la joxe marché yi defar yoon lépp mu ci yéene kaay bi ci direct news Mansour Faye moo ngi leen di naan yoon yu bon fii ci Sénégal li ci des mu amati bareetul ci biir yéene kaay bi ñu ngi xam ne naan yoon ñu bari li ko wund mooy ay travaux ñu doon amal ngir jekk-jekkalaat ak installé BRT bi lii moo ko waral ñooñu Mansour Faye ñoo ngi xam ne naan loolu léegi mu dàkk li ko waral mooy ci weerub décembre bi ñu libération yéen a kaay xëy ñu ko mooy trafic agence bi amee diggante Sénégal ak Maroc yéen a kaay bi ne ki nga xamante moo ni moo nekk kàngaam gu mag gi te GP bu daanu ci wàllum trafic de drogue moo la daaneel yoon teg na ko loxo nëbb ko jant bi loolu moo ngi amee ginnaaw bu ab GP jëlee benn colis waroon indi Sénégal ba ko dajee nag ab drogue la ci la daal jël téléphone am woo police bi boole ak ki nga xamante moo ko joxe boobi la colis te ga ci Caaroy Azur ñetti nit daanu nañ fa ca Sali itam am na ñu fa jàpp waaye trafiquant bu mag bu ñu woowee AG nekk ki daan dalal marchandise bi di ko séddali moom la yoon di seet jamono ji docteur Augustin mi fi nekkoon directeur de cabinet politique bu président Macky Sall yoon dal ci kawam Cour suprême envoyé na ko ab lettre ngeen ne ko bureau municipal ba mu taxawal na ko tas ndax la mu def dara baaxu ci lii la amee na ginnaaw ba ñu ma décembre yaakaaru recours dina ca am ci ab interview bu mu amal ak journal bi di sunu lamb moom la mu ngi cey wax naan ci kanamu Papa Sow Siteu am na avantage bu ndaw ki amee avantage ci ay maasam mooy mbër mi di jeex jàmm ginnaaw ba mu dumee daan kii di Ibou Afia moom sàqu ci ay magam ñu may ko ngir mu àgg ci cour des grands man daal xale yu jigéen xaw ma lan moo leen dal ba suñu nekk seen i góor rek suñu kontaanee su mee ba set wicc filmer photo yi xale bu jigéen bi daal di koy publier ci réseaux sociaux yi la mu leen tontu naan xale bu jigéen bi ñoom ñaar daa am lu ñu digle woon ginnaaw ba mu ko trahiré dem see keneen nag moom ko góor ki da mer lool ba tax mu jël photo ak vidéo yi ko soxna si envoyé woon jël ko yónnee ko yenn ci ay jegeñaale ak jëkkëru ndaw si seen say mën a tas ngir moom leen xolam mën a feex xolam mën a feex jolof ci kën moo leen doon may li ci yéen kaay jolof ci kën ak croustillant teneer commandel rek Connect Food agsi na nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay sa kër wala foo mënti nekk téléchargel application Connect Food commandé ci restaurant bu la neex waaw lu ëpp cinquante restaurant yu gën a mag biir Dakar ñoo nekk ci application Connect Food Connect Food daal boo bëggee sa restaurant di gën a fës wala nga bëgg a commandé vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept Connect Food mooy bu baax bi ku bëgg ay leeral téléchargel Connect Food Play Store wala App Store wala nga woote ci 77 821 08 27 wala 33 43 29 73.